السلام عليكم بوكو سنغال ماغي لين دي نيو دي لين جوخ سن واتي واي دي واخ ني تاي جي داما بوغون وقتان اك يين في تي يبل نور كانديدا يي بري ني لول 19 كانديدا لا ني ام تي سنغال واي داما بوغون ريك نين خامني 19 كانديدا ييب امول كين كو خامني lima defal jigen du Sénégal def nako ko defal xali Sénégal def nako mané ma xam ngeen ne man lii di wax yeen yéen jigen respecté jigen motax ma créé fondation maternité solidaire te xam ngeen ne fondation bobu at bu nek dina dépenser xaalis bu bari pour jàppale jigéenu Sénégal ndaxte xam ngeen jigéenu Sénégal ku respecté jigéen respecté nga famille ku respecté jigéen yàlla yërëm la. loolu moo tax ma créé fondation maternité solidaire te fondation boobu xam ngeen ne ñeenti waxtu yu nekk jigéen dina gaañu Sénégal ci jur doom ñeenti waxtu yu nekk jigéen dina gaañu Sénégal ci jur doom te loolu boo seetee kër gu nekk mi ngi foofu te man mii di man jirim la jirim boobu ma nekk nag moo tax ma yërëm jigéenu bëgg jigéenu Sénégal fonk jigéenu Sénégal dama ne ma ne képp ku bëgg a defar Sénégal da ngay toppatoo jigéenu Sénégal képp ku bëgg a defar Sénégal di nga toppatoo ndawu Sénégal képp ku bëgg a defar Sénégal di nga toppatoo famille senegal képp ku bëgg a defar Sénégal di nga wàññi di nga wàññi dund di nga wàññi dund gi di nga wàññi dund gi. le 24 mars 2024 bu ngeen ma joxee réew mi dinaa wàññi dund gi dimbali jigéen ji dimbali xale yi defaraat Sénégal. man de sama loxo dafa set musuma sàcc xale lu musuma sàcc alalu Sénégal. mosuma lekk alalu Sénégal te bu dee yàlla bu dee yàlla du ma jëlee réew mi kenn dootul lekkati alalu Sénégal kenn dootul lekkati alalu Sénégal ndax alalu Sénégal Sénégal yi yéen a ko moom yéen a ko moom yéen a ko moom yéen a ko moom.